Mourou Boussa Dieng Mourou Boussa Dieng mi de la Cheikh Omar Diagne porte pelen Nabi Vision Yon na def liggéeyam Mourou Boussa Dieng muy rew mi don sago Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne porte na pelen na yon def liguey ak rewande mom kenn du ci far kenn ngay mourid bi muy ke tidiane bi muy ngay xadir ak lu mën di don ak rewande mom jar kiiyut fen waaw muru bu Cheikh Omar Diagne ak tuumaal lim ko don tuumaal Cheikh Omar Diagne yóbbu ko ci yon jamono jini nii. fi wax lu crédible fi wax lu nit ñi gëm kaddu gu mujj bi man ni gëm bi suma sañoon tay way soo tudd dugal ngeen ma ci ay waxi sonko alaykum gaay ma leen nuyu leen ziar euh manam suma joge fi ma togi suma demé damay japp julli tuup si yalla sa kaddu yu may deglu ndax do nit ku baax da ngeen iñaan da ngeen soxor da ngeen bon mo tax gëm naani man gëm naani kera yowmal sen zari yi jitu jahan jahannama naaru laay da yow ba nga da journal la laaj mënoon nga ne ko du wax ci jëm jot nga bañ sa tudd turum mais tudd nga nit ki wax ci mom ba doyal plus de 2000 ngay wax ci ben jëm nga pare ne journaliste yene mu togn bu len ma laaj si ko kon lo ci don wax bay tudd turum billahi wallahi wa taala du len deglu du len setan ndax nawloowu leen si benn côté lima ma leen wax su fekkee ni mam gënul sen mam sen mam gënul mam mo leen gëna baax gën leen a jullite gën leen a jàng gën leen a gëm yàlla suñu borom gën leen a bëgg réew mi. nabi Vision. Sénégal nag ku nekk man nga droit ni si lii laa bokk si lii laa bokk si lii laa bokk maa gën diw maa gën diw maa gën diw sama maam mooy diw sama maam mooy diw mais loolu lépp amul solo nit ki si jëmm ji la waaw Serigne Touba Mbacke Xaadimu Rasul ñëpp nangul nan ko képp kuy dund si kaw suuf yor sa xalima di bind nangul nga jëmm jooju. boo bokkee si moom nag dafa am melokaan yoo war a mel mais billaa wala soo ko melul kenn du la nawloo te yéen dañ leen nawloowul dañ leen xeeb dañ leen dañ leen xeeb si dëkk bi ndax da ngeen di fekk nit ku xamante ni yàlla suñu borom moo ko teteel boppam bëgg ko def ko nit def ko jullit ngeen ñëw ni ko doo doo dëkk bi yow doo fi baaxee matin soir ngeen di xëy di wax si moom lijjantiwu leen loolu moo leen wuteeg Ousmane Sonko da ngeen koy lijjanti lijjantiwu leen seen gémmiñ ñu baax du si jóge seen gémmiñ ni lu lu xolu kiñaan nekk seen xol yi te moom yàlla suñu borom laab xolam def ko ab julit def ko nit ku baax nit ku bëgg alxuraan nit ku doon julit bëgg Sénégal yéen ngeen ñëw ni saay dëkk bi moom warta baax li ma wax la Sénégal bu ñu jàppoon rey mag ñëpp mag ñi fa nekk ñëpp rey leen suul leen Sénégal bu xëy day changé Sénégal mag ñi ñoo bëgg Sénégal yi xale yi dañoo bëgg baax mag ñi doo leen fi baaxee moo tax nga xëy plus de cinq ngay wax si doomu jàmbur waaw baayam gën sa baay ndayam gën sa nday Naby Vision. nga toog fi yow say waajur bu nu defoon si yow li nga war a def si yow dëgg-dëgg doo toog fi di wax si Ousmane Sonko ndax musul wax si yow musul la tudd man ñi ma gis ñëpp ñuy def seen bopp Sénégal kilifa kilifa Ousmane Sonko musul leen tudd musuma ko gis Ousmane Sonko Sénégal rek lay wax noppal leen seen bopp les coups ça fait partie bu yàgg coup bi dem na bu yàgg c'est fini xanaa beneen àdduna. yalla lakk leen lakk ba ngeen tas mu indiwaat leen len moo tax ngeen kay dab ngeen soppeeku waat mais en tout cas yéen ngi dund do leen ko musa dabati même boo leen tuuboon ci yalla sax do leen ko dab manam bidéo mi ngi jantak ni ak suuf ak asamaan barke borom Touba. assalamu alaykum gaay vidéo bi dama koy defal Modou sa jeng ay Modou sa Dieng te nga noppal sa bop noppal ñu ñun rek nga bëgg sonal fim mu toll ñu sonal ci sa wax yooyu de mënuñoo déstabiliser xam nga nan nga ñu mëna sonalé moy yow nguur gu ñew japp na la. nguur gu ñëw tëj na la fi mu toll nii bëgg ngaa jël sa wàll ci ñun Cheikh Omar Diagne waru la woon a porter plainte mere naa ko ndax fi mu toll nii Cheikh Omar Diagne dalaa porter plainte ngir li nga ko wax moom mais yow da ngay wëlbatiku ne nguur gi ñoo tax ñu ñoo ñoo la jàppalu victimiser wu nga bëgg yow maître chanteur nga comme ni ma la ko fi waxee woon ca début suñu euh, bañ jëlee réew mi maître chanteur nga fi mu toll nii yi ngay wax nii yëpp bëgg nga ñu jàpp la ndax sa bës jugaat ndax da ngaa dem fay land da ngaa ba dem fay land suñ tol ni bëgg nga kulay katuat gaay yi gis ngeen Modou Bousso jang mi pour yeen ñi xamul. nabi Vision. se doomu soxna la. doomu soxna la manam buma la ko waxe moy yaayam Mbàkke la sant doomu soxna la mais xol bi mo supporté wul dafa iñaan iñaan la def dafa iñaan iññañati mo dal Modou Bousso jang mi nguuru Ablaye wad nguuru Macky Sall fi mu nguuru Jumaay la señ fang. te mënoo loo leen dara ñoo xamante ni avant ñuy falu ba léegi yaa ngi leen di yàq salafiste euh, yahud lu ne lu ne def nga tuddee nga leen ko tam nga leen lu ne def nga leen ko waa Touba gi nga dëkk ñoo leen gën a voteel ci réew mi nga ne nga pare nga ne doo bàyyi bala maa dee nga sol sa ngand yëre yi jël sa euh, kaala gu bokkut gi teg ci jël sa mbaxana mi tek woo sa site internet boobu mu ñëw toog Modou Bousso Dieng man enquête oon naa ci yow de sa parti boobu nga yoroon waxoon naa la fi ne mennum yow yaa ci ne sek ki nga nii moo nekkoon sa secrétaire tam doon liggéeyee ca mairie ba kooku noonu mos a jël sax parole ci sa conférence de presse boo masaan organiser conférence de presse sa kër mag ja sa kër rakk xaw ma sa kër mag ja nekk héliport côté héliport foofu nga daan dem soo fa demee kër doo ko defee sax sa kër foofa nga daan dem soo fa demee xale ya nekk foofu noonu lañ lay dajaleel ñu woo leen ñu ñëw toog lu leer laa lay wax man mi tuddoo sa kër mag ja nekk foofu ak fa ngay defee sa conférence de presse ak loolu kon xam nga ne am na lu ma xam ci yow. bo dajale xalé yu ñew tok nga organiser sa sa sa sa conférence de presse suñu paré ko ne dem xalé yu bokku ñu sa parti xamuñu la. nabi Vision. manam sa sa ka fa nek sa mbokk ma fa nek mom lañu russe mom lañu daan ñewul mais du yow pour mu leer sa parti wax ma keneen ku ci nek ban kan mo ci adhérent xawma parti la xawma mouvement ban adhérent la am kon nak nga bëgg jël sa lamiñ bi di ci wax ay musibe légui nak ay saga la déssé nga né doomi soxna nga nga tok di saga saga mo la déssé légui légui da ngay tok di saga yaa di yaa manqué yaa manqué comme ñett boo xam ne si ñaar dërëm ya daa réer mu des dërëm yaa woyadi saaga yu tuuti yooyu nga xam ne ñun ñii koy def sax léegi ñun ñu ngi koy jéem a génne ci suñ bopp yow nga ne doo ko baax yaa matadi yaa manqué dara doo ko doon cam maa la jéppi ki may waxal fii nag du ko taf non non non ko taf damay wax ci benn waay boo xamante ne nii élément Bart la tudde boppam gars yi nag ñoo ko defoon patriote mais man bu ngeen ku di arrière ci ginnaaw wala nga am ko di nga xam ne man élément Bart def naa ci moom ay vidéo yu bari bu yàgg nag ma waxoon patriote yi ne leen kii du patriote daf ñuy mbubboo pour ay vues daf ñuy mbubboo pour ay abone te xam na ne ak Barthélemy Dias kese doo am ay abonné waaye mënoo ne bëgg ngaa bëgg Barthélemy Dias Barthélemy Dias ak Sonko nekkuñu ndeneen lii beneen bi mooy bu ngeen fàttali keroog bi ñuy jàpp ñoom bay na géey élément baat defoon na benn vidéo bu ngeen fàttalikoo li mu waxoon. Naby Vision. li mu waxoon da doon wax comme si ka doon wax ne Sonko day tàllu réew mi naan ay ku bëgg na nga ñëwaat. laay FM yaa ngi fi vidéo yaa ngi fa woon ba ko gis mënoo ne da ànd ak Ousmane Sonko pare di vidéo say video di ko duulal wala ngay ànd ak kuy duulal ay booy ndax Barthélémy dafa duulaloon ñoom bay na moom mu ànd ak moom àndoon ci loolu appuyé ko. def ci ay vidéo nag wax ci wax yu rëy man ci laa génne sama bopp ci moom ci laa génne sama bopp ci moom élection yi dikkati mu ne waaw man baat laa àndal mais Sonko laa ginnaaw Sonko demul élection jomaay la jiital man damay toog neutre ta ne munta ne buggul woon a ànd ak même bu Ousmane Sonko demoon élection du ànd ak Ousmane Sonko ndax élément Bart dafa am lu ko Bart lu muy jox ca mairie ba loolu waxoon nañ ma ko fi bu yàgg mais man maa bàyyiwul woon xel ci man maa bëggul woon a bàyyi xel focus focaliser wu ci moom quoi moo tax lijjantiwuma ko fan yii nag bu ngeen xoolee Facebook am Facebook laa gis sax dañ ma koo wax sax nag ne ma sa waa ji de la waxoon lépp dëgg la commencé na temps yi mi ngi attaqué Ousmane Sonko changé na photo profil am euh, mi ngi te ma laa dem xool ko Facebook ma gis muy bind naan ay ko bu dee da ngaa bëgg cookee nañ cooki di xas Ousmane Sonko quoi ay naan ko waaw da nga trop bavard da ngaa bëri wax nee na Ousmane ko daa bëri wax na liggéey wala da ngaa bëgg cooki nañ cooki ak naan ay fen day jël xaw ma escalier xaw ma genre wax yooyu noonu di traité Ousmane Sonko daf fenkat bii fii temps yii moom temps yi moom léegi dimbali nañu ngir yàlla jëmi suñ yonent jëmi yonent bi bàyyi noog sun sun sun suñ patriote quoi bàyyi nañoo ak suñ patriote léegi moom lim lim muuroon ci kanam muuri na ko léegi léegi ñi nga xam ne si ñoom ñoo ma am na ñoo xam ne bi ma ko fi njëkk defal vidéo am na ñoo xam ne ñoom doon bindal naan ma kii moo la gën a nekk patriote xanaa am naa dëgg seen kaw xanaa yéen am naa seen kaw gis nga man ku leen wax ne leen kii intérêt moo ko dugal ci parti bi xam leen intérêt ko ci dugal ku leen wax ne leen kii du patriote barke alxuraan xam leen du patriote ndax dara nekk lu ma si dara nekk lu ma si lekkuma ci dërëmu kenn naanu ma ci daanu kenn waaye man ku dul patriote dinaa la teel a détecté élément Bart sama kont bee ba compte bi ma yoroon bi ma ko ci bloqué kenn xamul ban 1900 la kenn xamul ban 1900 la bloqué woon élément Bart man bokk naa ci ñi ko a bloqué boobu noonu mooy ba ñuy jàpp Ousmane Sonko avant ñuy jàpp Ousmane Sonko ca ca ca ba jàpp ñoom bay naa gi boobu laa bloqué woon élément Bart ba léegi may gis nag muy def yi mi def noonu ay Facebook ak ñoom seen yooyu ma ne leen kii day saale day fen ànd ak ñun may leen day fen ànd ak ñun muy de muy ay acte élection yi jaar na fi Facebook yeeg yi fi jaar bari. Naby Vision. mais nit da ngay am ngor diiñ fi nga far nga ne fii laa far yow intérêt yi nga topp ci Barthélémy Dias moo tax ngay saaga Ousmane Sonko yaa réew yaa réew yow loo am Ousmane Sonko la du Barthélémy Dias xam nga ne yaa ak Barth 15.